lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor.

rawatina lu xew TV site internet euh, di leen jaajëfal bu baax a baax baax ci seen taxawaay ak seen pas-pas ci liggéey bi nga xamante lépp loo xamante ni luy naqari askan wi la wala li nga xamante ni luñ ñaaw ñaawteef la ci askan wi ngeen di ko dëgmal di ko teg mbokki taalibe bi di ci indi xalaat te lii vidéo bi nga xamante ni moom lañ dugal tey mooy vidéo bi nga gis ñetti Baye Fall yooyu naan ay Baye Fall lan sax la ñuy wax nee naan ay Baye Fall lan gis ni def borom taximaan bi te ñun suñu maam Cheikh Ibrahima santu ñuy lii deflawuñ tamit lii liggéey ñàq jariñu la ñu sant lu mënta yàgg ba mënta ñàkk danga am ci ndigal ci li nga xamante ni mooy li ngay màjjaal mais màjjaal boo gisee borom taxi bi di raam ndànk ñi taxaw ci kanam di ko kar kii dugal ci weeru avant bi mu dugal ci boppam ngir lan màjjaal pour sarax ma maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baw mu dina santuñu lii tey santuñu ko ëllëg ki sarax sax du force sarax boo ko mënee nga koy def boo ko mënu doo ko def ndax euh, saa su nekk rek ñun lii ab luy salteel image bu Baye Fall lan lii luy salteel image bu Baye Fall te loolu dañ ci war a xeex war ci jug bu baax a baax a baax a baax ndax lii doon na loo xamante ni rafetul ñaawlu nañ ko trop trop trop trop trop ba ca kanam yàlla ñaawlu nañ ko trop ñaawlu nañ ko trop di bëgg ñu partage vidéo bi ñëpp mokkitaal bi mën ci jot képp ku ci commentaire nga dugg ci commentaire ci ndax ñoom bu fekkee dañ koy dégg tamit ñu mën a saata seetaat seenum xel wala ki leen koy defloo wala kër mooy seenu sëriñ mu taxaw yedd li neen nii kat du yoon ndax maam Cheikh Ibra Fall daawul doxe nii nooy tub baax te jéglu baax a baax ci kàddu yi. xam nga lii moo tax ñu naan Baye Fall te fekk Baye Fall la ñuy joxe dañ koy ñaq koy ñaq yéene ko sëñ bi jox ko ko waaye li Baye duñ koy tàllal rek ci mbedd mi déedéet ñoo koy ñaqal seen bopp jox ko sëñ bi ñii nag mooy ñi nga xam ne boo leen yendoo sarax ba ngoon su ngay yóbbu ko fa leen neex ñii ñooy Baye Fall du ñuy Baye de ay Baye Fall lan yee moom du ñuy faal ay bàyyi faal lan ñun duñ forcé kenn da ngay liggéey ñaq yéene ko sëñ bi jox ko ko def ko def ko defal ko sa doole defal ko sa ñaq lool mooy bàyyi faal ñaq ñuqi joxe mooy bàyyi faal waaye di kar nit sonal ko mu jox la te xolom seddu ci ah déedéet. waaw comme li nga wax rek comme li nga wax ñi moom mënu ma leen considérer bàyyi faal ñii bàyyi seen bopp lan quoi bàyyi seen bopp lan mais. dàkkante leen turu Baye Fall sax mérité woon ko quoi parce que mbir mi daal du nii daal mbir mi daal ñàkk moom kenn du ko jiyee ci euh, jéeb jàmbur surtout maanaam nii nu ko bëgg a maa jàll nii moom rafetlu woon ko moom. xam daa am loo xamante ni Cheikh Ibrahima moo ko waxaloon boppam Cheikh Ibrahima daa bëggoon sax ak Baye Fall yi di liggéey di indi àddiya ndax am na góor gu ñuy wax Serigne Makhtar Niang dëkk-dëkk bu ñuy wax ndey daa ñëw jibul ci Cheikh Ibrahima daa ne Cheikh Ibrahima da may sas am murit dees koy sas mu ne ko maxtaar ñang te ngaa def loo am indi rek mu ne deema sas rek si xëb na ko at mu ne di indi fukki dërëm mu dem minaas mbay at mi jot mu mbay minaas boppam juróom-ñaari dërëm la daal di ne woon na ko di fukki dërëm mu daal di dem dugg saxaar jëm si njaareem mu demee ba saxaar jub gaarub njaareem bi dana tiir du wàcc am koo xam ne danoo daa yoraloon ni jaay di ko tere contrôle bi dugg de kooku daanu contrôle bi daal ne xanaa ki moom bagage yi sëñ Matar Niang ne moom ko man mi maa ko mu ne ko lii ñu ngi koy teel nga mu ne ko xawma ko woon na yóbbu leen ma sa gaar ba ñu yóbbu ko fa téye ko fa timis ñu bàyyi ko mu génn kam ko njëkk jaay dana ko ñett dërëm laa ci man mu jaay ko ko mu ñëw di nuyoog Cheikh Ibra Cheikh Ibra naan ko ana waa ndey ana waa bërëb sàngam ana diw ana diw ak diw ba am nga jàmm ba nuyoo bi diib mu jël fukki dërëm yi sànni ko Cheikh Ibra daal di jël ci bant xat bi fanal ñetti dërëm yi ba mu féete ca côté ba jël juróom koo xam ne ana waa koy defal waa yàlla ji Cheikh Ibrahima xeexeexee lu mu wax kuy defal waa yàlla ji la mu ne xanaa moo waaye yàlla te moo ne ana njaay yàlla ji sëñ Bamba mi waayu yàlla de kenn nattablu woon waaye yàlla la daan ko ñëwal ji daal koy sarax kooku daal di di ñaan daan ko yàlla nga doon mag mu am ñam yàlla nga dem màkka yàlla nga nangam nangam Cheikh Ibrahima ne ko yéexeexee yow yaa war yow yaa war a ñaan wala borom ñetti dërëm yi moo war a ñaan ñetti dërëm yi mu tàbbi ci man te bëgg ko woon menn maamam mu nekkoon àjjana am ko woon te bët naa gétt yëpp àjjana dañuy fanaan sëñ Mata Ñaŋ daal di bët saakir loolu la may wane mooy Cheikh Ibra ku joxe ci aw ñàkkam aw ñàkkam la la ca mën a fekk maanaam bokkut ak nga xam lii Cheikh dañ koo seexlu lii kar nit ñi danga may jox par force awul fenn waaw loolu ku koy def bokkoo ci yoonu Cheikh Ibra waaw Baay Faal yi dëgg duñ ma jàlloo kenn waaw demal ñàq andi ma te Cheikh Ibra nag lu waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu daara làmp ab wóoru jaal seenub dong seenub taal bi mu leen di ñu koy wax ngañ faw seeni Baay Faal leen di siyaar nuyu ñëpp di balaax ñëpp vidéo bii ñi maanaam Cheikh Ibra la mboxoon dafa leer ndax bayfal boo demee ba naan la li nga def nii rek doona toog bayfal moom leneen la dee waxoon ndax Cheikh Ibra ku silwiise la woon moo dàqoon a sañse fii Cheikh Ibra ba mu daan xeeñ rek maanaam fu ay bu mu sànn génn nga xam ne góor yàlla dëgg génn na Cheikh Ibra nii gars yi di màjjaale daawu ko màjjaale Cheikh Ibra daawul kar doomu aadama diglewu ko Cheikh Ibra du takk ay jololi Cheikh Ibra du sol lu tilim Cheikh Ibra du sol lu xot musta sol lu xotteeku ak njabootam sax mosuñu ko def du takk ay lam takk ay plan bu doon loolu suñu seex jëmb takk ay lam ay jëloori waaw mosoo kenn ku ku ku bokk ci Seex ku koy def daa am yoo xamante nii nag boo ko doonee yaa ko boole ci Baay Faal gi waaye du Baay Faal gi waaw la suñu Seex Faal ma waroon naan bàyyi sa bopp la waaye doo Baay Faal moom bari na ñoo xam ne lan nekk moom bàyyi sa bopp la waaye doonuñu bàyyi faal